maa ngi lay fay si maa ngi lay fay di la delloo ziar bu baax di la nuyu di nuyu sa caméraman bu baax a baax a baax. Hmm. yéen promoteur bi jamono ji seen taxawaay ci làmb rafet na gis nañu ngi tëgg xale yi bés ñu ngi neex te làmb tey bi noo ko yi noo waaw làmb bi dañuy ma saw sunu frère sunu xarit Habib làmb ji nag macha allah mention spéciale mbëri bëri nañ combat yi neex waaye promoteur bi wax dëgg yàlla li am tey nii bu ñu sañoon mu bañ a taw mu gën ci gis boppam. ndax ni ko doon tey lamb ji stade bi kenn du fi xaj waaye ku fi ñëw xam ne taw bi am na lu mu laf ci bis bi di ko mas taw nag di ko ñaanal taw bi yàlla doon taw jàmm ci moom taw xewal ci moom taw mbégte ci moom bépp jafe-jafe bu ko waroon a dal ci bi yàlla na ko lii fànqal waaw ndax yàlla moom lu mu dogal rek moo gën si jàmm quoi. jafe mhm. kee ñu dem si diggante Gora ak ki nga xam ne mooy Fils de Balla bis boobu ñëpp a ngi koy xaar lamb ju neex lamb ju rëy lan ngay wax ci loolu. waaw lamb jooju lamb Sénégal lamb amateur lamb askan bi la ndax combat de taille la Gora Sock ak Fils de Balla mën nañu moytuwante ñun tamit mënoon nañu dem xool lu yomb wala ñu xool nooy waaye suñu jëlee combat boobu def si suñu moyen def si suñu alal bëggum mbégte amateur ak lu kontaanu amateur yi moo tax biñ si jógee nag jokkeel nga xam ne moo kéwél ñu si grand combat la ñu mujjee ñu jël ko ne ñoom ñun spécial lañ leen di bëreloo jël Moussa Dioum 2 ak Boy Sil bu école de lutte Fallaye Balde boolewaat leen ci bis bi muy combat xam ne trois têtes d'affiche si kaw bu ci nekk mën na grand combat loolu suñ ko defee pour mbégte amateur amateur kontaan ko ci dagg bi nga gis sa bopp ñu fas yéene def ci fête bu rëy ndax la 14 août ñëpp xam nañ ne jam production si tëj saison am waaw boole ñaari mbër yoo xam ne nag fils de Balla Balla Gaye 2 moo koy indi. Gora Sock Modou Lo koy indi. waaw Boy Zil Ama Baldé koy indi. Jokal bu jógee ressortissant Fatick waa Fatick dañ boolal taxawal écurie bi ñoom Port Maurice ñoom bato Sénégal ñoo koy indi waaw mu ñëw Kewel li mu jógee barki de Mandiaye gis ngeen bawal bawal yëpp mere nañ tafaatin nee na mooy moo koy gunge ñoom ñëpp ànd ak moom kon nekk na journée boo xam ne combat yi ndaw yi nekk ci biir suñ koy wax fii duñ fi jógee di wax amateur nañ teel a ñëw 10 heures incha allah ñëw bi leen parti gars yi toog seetaan lamb ju neex dund ambiance bu neex jam production tëj saison déwén incha allahu rabi mu ubbeeg affiche bu neex ndax jour ba mën nañ leen indi surprise. parce que yéen a amul surprise. waaw non nañ leen indi surprise jour bi. non non non dinañ dajji paquet dinañ dajji paquet ba. dinañ dinañ. dama ne la. ku la gën ku la yara la gën. dëgg la bàyyam ba ma koy xam. longu dat kere ba ne mooy moo moo kii yey doomam ma ne ko yaa baax bàyyi sa bàyyi ka ah, si alxuraan ku la gën ku la yar yaa baax bàyyi bàyyi ñas rek la gëm waaw waaw moom sam père la maa ngi koy nuyu baax a baax père Cheikh waaw di wax presse bi yëpp événement bi seen événement la waaw ngeen dugal seen loxo incha allah rabi yi nañ leen ko jox ñu liggéey jàppalante ñun ñëpp ay ndaw lañ ah waaw ñaari mbëri ñoom ñu ngi leen di jaajëfal waaw maa gën a bëgg ci yéen di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. waaw secret jàmm bi waa dëgg la. waaw secret bi nangoo liggéey nekk xale. Ah, topp ndigalu kilifa yi. di sàkku ñaan di leen ñaanal rek loolu mooy suñu secret waaw loolu kese la moo tax te li ñuy def dañ ko bëgg xam ko nekk ay ndaw yàgg ci suñu tëgee làmb neexul rek ñun la neex boot lépp lu ñu def ñun la moo tax tey incha allahu rabbi bu ñu indee affiche bu mel noonu nekk combat yoo xam ne yëpp nag jam production moo ko doxal boppam taxawalal ko boppam da loolu yomb loolu ku xamul làmb du ko def te incha rabbi bu la 14 août bu mbëri ñëwee fii di ngeen xam ne wax dëgg yàlla ndaanaan moo tëgg làmb yi. jërëjëf Diop jërëjëf Diop Dame Ndaye merci. waa mbokk yi ñu ngi nii taxaw ak El Hadj Bamba Raay bi FM. waaw ndeysaan. El Hadj Bamba nuyu nan maa ngi lay fay naar. ñu ñëw tey arène nationale di bëggee waa fekkee TV yëpp di nuyu makan moom sama xarit la sama doomu nday la sama lépp la xam nga ñun milieu presse benn lanu kii day nekkee fii kii nekkee fii mais ñun ñëpp on est ensemble xam nga moo tax dama lay nuyu bu baax di ko nuyu di nuy képp koo xamante nii rek yaa ngi seetaan Fekke TV. ñu ñëw tey arène nationale fekk la nga toog loose di cons tey nan nga dundee làmb ji. waaw tey nag dama ñëw seetaan si Habib Lekran nga xamante ni journée bi tubaab fekk la macha allah te euh, bëgguñu woon sax mu demee nii ndax. am na ci ñoo xamante ni dala leer na taw bi moo leen waaye waaye bis bi wax dëgg yàlla réussir na gis nga bis bi réussir du ci du ci mbooloo mu bari wala mbooloo mu néew bis bu diis wala bis bu réussir mbëri kenn ku ci nekk indi nga jom indi nga fulla te boo xoolee yaa ngi gis promoteur yi ci ginnaaw nii mu leer la ni ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ak lu kenn ku ci koo ci laal rek laal nga ñëpp ñëpp benn lanu moo tax tey ma ñëw taxaw nii toog nii nag xam nga bàyyi bàyyi leen ak yëf nga xamante ne nii yéen macha allah kenn du yéen. yaa suñu professeur. yow yow yow kenn du yow naar xam nga yow yow da ngay ndaanaan te bëgg naa làmb it la xel ndax yaa ngi def lu neex kon yàlla na la yàlla defal jàmm yow it waaw yàlla na yàlla ñi ñi ñiy bëre muy taw. fët bi jaw tey lan nga wax waa CNG muy taw nii ñu yóbbu làmb ji ba ut tey fët bi ci kan la. waaw xam nga booy xool booy xool làmb ji. bee passé sax daanaka tëjul bii ñëw na ñu prolongé ko ñu ngi naan le 31 ut la war a tëj nekk na loo xamante ne nii Covid bi bi mu fi jaaree dafa am lu bëri loo xamante ne nii am na lu mu laaloon ci làmb am na ñoo xam ne xale yoo xamante ne waroon nañu génn dem ba war a génn Covid bi ñëw ñu toog deux ans bëriwuñu ñooñu tamit xam nga yëf yi da xaw a laal moo tax xam nga nag taw nag CNG defe naa ni lim ci mën bëriwul ndax taw bi moom taw taw yàlla la mbëri ci boppam mënuñu ci jaara ñoom it ñëw nañ bëri nañ ci fulla waaye it bëri nañu ci jom ñoom waaw maa ngi gis léegi waa Sintoor daan 5 tonnes mu leer la ne xale yi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi yéeg yal na yàlla defal xale yëpp jàmm it waaw. waaw fan yee ci ginnaaw ñu doon dégg nouvelle boo xam ne wax dëgg yàlla métti woon na lool ci ñun ah, ñu suñu papa Saliou Thiam fan ngeen toll ci moom ndax. waaw wax dëgg yàlla. presse bi moom dama leen di sant ndax presse bi boobu ba léegi ñu ngi koy ànd ak ñun waaye Bantamba TV tamit ñoom it maa ngi leen di sant ak ñëpp ñoo xamante ni nii rek ñu ngi yëngu ci wàllu peres maa ngi leen di sant ndax boobu ba léegi wéetuñu ci benn yoon ñu ngi ñuy àndale ci wër bi ñu ngi ñuy àndale li ci communication beeg yëpp ndax euh, bi paa bi biñ ko mujjee gis yéen yéen a fa njëkk a ñëw bi nga xamee ni réer na kon loolu nekk na loo xamante ne nii li ma naan làmb njaboot la loolu daf ko wanewaat ba tax na léeg-léeg ñu dégg ci ay écho yoo xamante ni day léeg nga dégg nit ni la nga wan nit photo bi mu ne la gisoon gisoon naa ko bërëb sàngam mu nekk ay mbir yoo xamante ni daal xaw naa xaw naa lënt ci suñu biir waaye daal ñu ngi ñaan ne képp koo xamante ni gis nga Baye Saliou Thiam euh, nga woote ci 77 967 97 98 waaw ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy sàkku ci képp koo xamante ni rek gis nga di di leen jaajëfal nag di jaajëfal waa Fekke TV ndax nit ki loo fekkewul mënoo ci wax kon Fekke TV ca Fekke ba la maa ngi lay fay di la ziar di la sa wàccuwaay. Arsenal ci lan nga ne. maa ngi nii di sant yàlla di am lu ma métti tuuti si làmb quoi. mais avant tout damay nuyu madame Xot sama jigéen madame Xot di nuy monsieur le ministre Amadou Xot di nuy waaw yëmbal borom yëmbal nga xam ni teraanga rek la xam ak lu baax moom soxna muy madame Xot di nuy itam madame la ministre Sophie Guimardima borom Joal maire Joal dafa jub madame la ministre maa ngi koy sant bu baax madame Sibi di ko nuyu mention spéciale di nuyu ñëpp waa Joal Fadiouth waa Guédiawaye ma metti leen la dañoo a a man man tëlca barke Ahmadul Khadim man tëlca man bëgg ma du combat bu yomb jox na ma ñaari combat dem père sama ménagère man maa ko delloo ko daf ma arrangé wul ñi ñu may jox ñooñu arrangé ma dafa am numéro bëree si làmb dafa bëri. ban catégorie nga bokk. classe ñoom Mor Kankan bi ñoom war naa mën a bëri ak ñoom mi ngi am na combat mais ñeneen ak ñeneen mais bu ñu si nekk du xool lu nooy lamb ji politique bi dafa bëri nañ jël mbëri boole leen seen biir ñu bëre billaahi man fekkee lu nooy laal si lamb ji ma dem toog bàyyi bëre nan ñu jox si mbëri ñu bëre suñu biir. Mor Kankan am na am na combat. yàlla may ko ndam. instant yi Mor Kankan comme nga am na combat te catégorie boobu nga bokk boo ko amul kan kan nga soxla keneen. na ñun

waaw bëgg nga lu métti. ay boo yi nan ma jox ñu bëri amul. combat ñaari ñaari combat bi ci géew bi su ma ko amee jël mais dama xam ne duñ ma nangu rek. Ardo Saba. non duñ ma nangu. billaay duñ ma nangu dama ko xam xam naa leen baax. kon ku ma xamul làmb ji ma sa xamul say mbokk xam nan ma mais Abou Ndiassé moom na ñëw ñu bëre li ne fii di taxawal na ñëw ñu bëre ci defet la jóge ma ci victoire laa jóge na ñëw ñu bëre. mais Thiatou Fora daan na léegi alliance Baldé ñaar buñ ko waxoon. mais suma ma ko amoon jël mais du ma jël. moom moo dul jël ma ne ci yow ba kuñ la wax nga ne du jël. boo waxee ñooy dafa mën a bëre man looloo ma jaaxal ban mën a bëre man mënu ma bëre. billaahi damay jàng mënu ma bëre nee na damaa naqaree bëre nañ ñëw ñu ma ak ñoom. Abou Ndiassé dafa war a ñëw ñu ma ak moom daanu la fi nekkee man damay daan dama koy dimbali rek na ñëw ñu bëre Abou ah, di nga yow ñeme nga Abou Ndiassé de. ren damaa dem Gambie fekk fa Gambie ma dem Gambie ñu daje foofu noonu ñu dox mënoo soxlawu ma la moom lu may lu may bañee daf maa raw si làmb man li victoire moom amu ko moom ay defet rek la man victoire la am na ñu bëre en tout cas daal mbër ñeme nga Abou Ndiassé Abou Ndiassé na ñëw ñu bëre maa ko wax Abou Ndiassé man Arsenal maa ko wax na ñëw ñu lekkante maa ak moom Abou Ndiassé mu ngi lay dégg waaw du loolu weesoo may nuyu waat waa Géejawaay bu baax du nuyu waat waa Géejawaay bu baax grand Ousseynou Thiam maa ngi koy nuyu baax du nuy monsieur le ministre Amadou Khot madame la ministre Sophie Guimard Dima sama jigéen sama lépp bu baax nit maa ngi koy nuyu di ziar ñëpp nag jaayef gaynde